asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataayub alquran bu tedd bii di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bokk ci mu def ko ci jataay mu boole ko ci jataay yi nga xam ne moo ëpp yiw ci kaw suuf mboolem li ñu fi nekk gépp noo ñu fi noyyi yàlla na ko yàlla barkeel alquran ginnaaw loolu ñi ngi wax ci turu al lajna al almiya muy comité scientifique bi nga xam ne ni ko léegi <coughs> taxaw suñu wet ñu fekk sëriñ Ousmane Dia ak Cheikh Ahmad Tidiane commission boobu nag sëriñ Xaadim Njaay moo ko jiite al imam ay kàngam yu bari nekk ci ku ci mel ni sëriñ Sàmbakke ku ci mel ne sëriñ Mbakke Abdourahman ku ci mel ne sëriñ Cheikhouna Mbakke Abdoul Wadoud ak mbooloo mu baree baree bari ñoo xam ne ñu am ak taxasus ku mel ne sëriñ Moustapha Diop Ndar ndax ma topp sëriñ Xaadim di ñoo xam ne ñu xam li ñuy def la jëm ci alxuraan ñoo xam jàng alxuraan ba noppi bind ay kaamil yàlla dogal na ñun ñu nekk ci commission bi ñun ñu nekk ci commission bi comme doon ci ñun bind nga ay kaamil xëy na man mi ci gën a néewlu rek bind naa ñett kaamil ci am na ñoo xam ne ëppal nañ ma ci lool euh, commission boobu it aju ci kuréelu yaatal mbindum alxuraan sëriñ Mamoun Fall dana ñëw leeral ko ci mujj jël seen kàddu ci kuréelu 3S dañoo jege waaye bokkuñ yaatal mbindum alxuraan kuréel googu nag euh, sëriñ Fadilu sekk moom moo ko jiitee di rakki alxaaji sëriñ Seck mi nga xam ne mooy jawriñu liggéey bi doxale suñu diggante ak sëriñ Fallou ak sëriñ Dame ak sëriñ Mamoun ñoom ñi ñëpp nekk ay jàmbaar ñuy saytu liggéey bi kon loolu ab présentation bu ndaw rek la li ñuy wax ci seen tur lañ koy waxee turu ñooñu lañ koy waxee dala ko ci alxaaji sëriñ may jawriñ ja ba ci mbooloo mi ñëpp mbokk yi ci fàttaliku gàtt li waral yaatal mbindum alxuraan euh, alxuraan bind da cee bokk bind da ci ak wàll téere bi borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcce ba noppi ne moom moo koy sàmm moom moo koy sàmm inna nahnu nazzalna dikra wa inna la xaafidun borom bi moo wax ne ci loxo arabiya bu dëgër la wax waxut anna inna la wax nahnu la wax tekki nazzalna faala la ko jëfandikoo nazzalna nazzalna dikra wa inna la waxaat foofu waxut anna lahu la xaafidun la xaafidun waxut xaafidun kese kon yi indi tawkiit yii fedli luga arabiya yépp dafa ñëw foofu ngir dëgëral ko kon borom bi sàmm googu faaw mu am waaye dafa am ay jumtukaay yoo xam ne moom la koy sàmmi bokk na ci jumtukaay ya ni jullit ñi dënni jullit ñi bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm wa maa bi ayatina illa zalimun kon dënn yi ci ñi koy mokkal mokkal gu wér di ndaanaan yii jàmbaar yi nga xam ne tey démb dañ leen dañ ñëw ci ñoom waaye dañ leen jox ay këyit yu weex kese ak ay enveloppe yu tàmbalee fii yam fii ñu dal di tàmbalee bind ñu dal di tàmbalee bind dana ñëw ci ñoom insha allah taala ñooñu ci jumtukaay yi la bokk waaye dafa am jumtukaay yi bind yoo xam ne dafa àndoon ak téere bi nañu bàyyi xel ne yonent bi sallallahu alayhi wa am na xare boo xam ne ñi ngi jàppoon ci yéefar yi bokk na ci li leen doon bàyyee mooy ku ci mën a jàngal doomi jullit ñi lu mat fukk ñu mën a bind ñu bàyyi la nga dem kon loolu li mu doon tegtale mooy am solo bind alxuraan bi mu wàccee mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wutoon kuttaabul wax yi maanaam ñoo xam ne dañ ko daan bindal alxuraan dañ ko daan bindal alxuraan moom munta jàng munta bind loolu it ñu naan in hada illa asaatiru lawalin saa bu ñu gisee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummi la munta jàng munta bind kon munta xam fu ab téere nekkoon ak loolu lay wu dëgër la ci <coughs> dëgëral li nga xam ne mooy mu'jiza bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tënk bu gàtt ñooñu ñoo ko daan wax gi bi wàccee daan ko bind ci ay xoliti tendrement ci ay der yu ñu wulli ak ay yax di ko indi ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam Zayd ibn Thabit mi bokkoon ca ku taabal wax yu ñu ca bindkat yonent boobu loolu la waxoon dane woon daanañ dagale alquran ci jumtukaay yii ma wax léegi ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi dund na ba fi jóge fi wàcc moom fukki at ak ñett mus sa bind musuñoo bind kaamil bi dagale ko bi fi yonent bi jógee nag bind nañ alquran ci ci jamonoy Seydina Abu Bakar jamonoy Abu Bakar Sadiq radiyallahu anhu ci la njëkk a bind kaamilu alquran bind koo ko la nga waraloon ni moom mooy ñi ñi murtadoon bañoon bañoon a nangul lañu ñu nanguloon yonent bi nangalutuñ ko Aboubacar Sadiq Aboubacar di leen song ay xeex di xeex ak ñoom ñu bari di faatu ci jullit ñi am ci xeex boo xam ne nag mbooloo ay ay ay faatu nañ ci jullit ñi ñoo xam ne dañoo mokkal alxuraan Seydina Omar tiit ci loolu ñëw ne Aboubacar Sadiq ndax duñu ñu dajale alxuraan ba mu nekk benn kaamil bu ñu sàgganee rek dana am koo xam ne li mu mokkal. buñ ko reyee ci ab xare ca moom dong moo mokkal loolu loolu day réer kon alxuraan dara manqué Seydina Abubakar Sadiq ne ko woon nan laay defe loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ba jóge fii musu koo def rëy woon jëf jooju lool ndax mu bañ bu nekk bidaa Seydina Omar di wax ak moom di wax ak moom ba yàlla leeral dënnam Seydina Abubakar fekk si ko ci ñu dagale alxuraan ba mu nekk benn kaamil ci tënk bu gàtt kaamil boobu bi fi Abubakar Sadiq jógee Seydina Omar moo ko yor bi mu fi jógee na Hafsa nekkoon doomi sayyidna Omar di soxna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yoroon bi sayyidna Osman nekkee nag amirul muminin bindaan nañ kaamil beneen bind moo xam ne mooy bi mujj bi moo tax ñu wax al mushaf al yi booba it xutayfatul yamaan yi dafa dem iraq fekk fa ay njàngin yu wuute ca ku nekk di wax ne lii rek a wér ci am ci yoo xam ne bokkul ci alquran ay lahja mahaliya la woon comme sunu sunu réew mi sunu mag ñi li leen yàlla maye woon dinañ ci ñëw ci kanam insha allah taala Seydina Xosayfa euh, ibn Yamaan yi ñëw ne Seydina Osman nañu dajale alquran nañu bind alquran buñ ko deful dana li dal waa injil ci seen injil bi danañu dal mooy ay anajil muxtalifa ay téere yu bokkul alquran ji kon dana am ay ay ay wuute Seydina Osman daal di dajalewaat alquran ñu fàttali ne Seydina Seydina Zeyd ibn Thabit radiyallahu anhu mi nekkoon secrétaire yonent bi bind alquran ci jamono yonent bi bi Abubakar Sadiq di bind lu kaamil bi moom la woowoon dénk ko mission boobu nga xam ne fi ni tey moo gën a nekk moo gën a yëkkatiku ci dara ju mën a doon bind téere bi yàlla bi ñu dénk la mission boobu nga xam ne koñ fal ci réew mi léegi da ngay bég da ngay fecc yaag sa njaboot waaye moom la deful loolu responsabilité léegi ne bu diis la daa tàmbali fi mu toog di jooy di jooy ba boo tibbee ci suuf si boo bësee ndox mi di siit ndax ronkoñ yi jooy yu metti yi lan la doon jooy mooy bu ma dajalee alxuraan mission bii ñu ma teg ma bàyyi ci benn baat boo xam ne dacee bokkoon ca bokku ci jullit ñi di jàng kaamil bi ba yowmal xiyaam baat boobu bokku ci ñu ma ko teg ko sama kaw fu ma jëm ay bu ma ci dollee benn baat bu ci bokkul jullit ñi di ko jàngalee ca bokk ci ba yowmal xiyaam ñu teg ma ko fu ma jëm xoolal responsabilité bi yëpp amaat chance bu toll ni ki bi Seydina Ousmane dagalewaat alxuraan moom la fi fekkaat mu woowaat ko mu dagalewaat alxuraan nga xam ne mokkaloon na ko mënoon na ko bind moom dong mënoon naa booleeg ñi ku tabul wax yi képp bind ko <coughs> waaye dafa doon dajale saxaaba yi ku ci lu ci waaye man ci alxuraan da ngay man benn saar kee man ko kee man ko ngeen bokk benn saar bu ngeen man mu laaj ñëpp na ku nekk indi ba xam benn wut dana ci nekk wala déet daan wax na nag du ma nangu ko ne ma dégg naa ci diw mu dégg ci yonent bi da nga naan sami'tu min fii rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aaya kada wa kada nga xam ne loolu moom moo charte kon loolu di lu a bàyyi xel loo xam ne kon yàgg na fi alxuraan ci taarix bindam mbind mii ñuy wax mii ñu yor bokkul woon ak mi ñu yoroon booba mbind mi ñu bindoon ab tomb sax nekku ci ab tomb waxuma la masque waaye tomb sax nekku ci woon yàq bi noonu lay mel moo tax bu kii di jàng bushuraan kii di jàng nusuraan nusuraan ci riwaayatu Hafs warsh bushuraan ci ci riwaayatu Hafs fi saase in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu kene in jaakum fasiqum bi naba'in fatasabbatu nga xam ne benn yax bi la doon doon mu évoluer ñu tomb ko ku mel ne xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf athaqafi liggéey ci liggéey bu rëy ci tomb alquran ñu dem ba ci yàgg ñu maas ko dem ba ci yàgg ñu tajisi a ko ay ahsaab ay jusu lañ ko lañ ko def muy fanweeri jusu def ko ay hisib muy juróom benn fukki hisib def ko ay nisif muy cent vingt nisif def ko ay roman muy muy deux cent quarante roman def ko ay sumu noonu la alquran ñëwee nag ñii mu mel nii liggéeyu aw nit la waaye bi fi sallallahu alayhi wa sallam di jógee li amoon moom mooy euh, tartib euh, aayaat yi ñi mu mel ni la meloon tartib suwar yi nii lu mel ni la mel ni la meloon waaye nag ay liggéey li ay liggéey ci liggéey yu rëy kon mbokk yi alquran moo mel noonu booy jàng usul dañ naan la ilmul usul boo jàng mantiq dañ naan la ilmul mantiq wala ilmul bayaan ilmul musala ilmul hadis ilmul fiq ilmul nahwi waaye boo jàng alquran moom ulumul quran lañ la ulum du la wax neen mu dee ulumul quran ngir li ci am ni mu wuutee ay nit ci liggéey ba mu agsi fii ñii di liggéey ci tafsirul quran nga xam ne dañuy liggéey ci tafsirul quran tafsirul quran bil quran boo demee lu mel ne adwaul bayan bi Muhammad Amin Shinqiti adwaul bayan fi idaahil qurani bil quran nga xam ne aaya yi mooy texte ci des am na ñoo xam ne masuraani li ñuy liggéey ci tafsir yi ahadis an nabawi am ñoo xam ne ci wàllu uh, mantiqul quran lañ bind ci wàllu balaaxatul quran lañ bind ñi ci wàllu naxwi bi lañ bind lu nekk nit ñi bind ci ñi jëm ci wàllu qiraa bi eh, riwaayaat yu wute yi ñi jëm ci wàllu uh, tajwid bi ñi jëm ci wàllu maxaarij ruuf bi bind ci yu jeex am nag ñoo xam ne dañoo bind ci wàllu rasmul quran nga xam ne da gis loo xam ne arab maye na ko waaye boo ñëwee ci alquran sañoo ko am na baat yoo xam ne mën nga koo taqtiya mën nga koo dagg waaye boo ñëwee ci alquran sañoo koo dagg am baat yoo xam ne bu la neexee man koo bañ a dagg waaye boo ñëwee ci alxuraan da koy dagg nga xam ne ni ko ni mel ci téere bi sañoo cee soppi dara xuruf yi nekk na mel sañoo cee soppi dara ni mel ni la mel loolu ilmu rasm moo koy jàngale rasm moomu nag mbokk yi bi alxuraan ñëwee Sénégal mag ñi liggéey na ci liggéey bu rëy xam naa dañuy tënk mag ñi liggéey na ci liggéey bu rëy ci seenu njàmbaar boo xam ne damay xam ne al ilhamu ilahi la ndax loolu yàlla képp moo ko mën a moom mi noonu moo ko sàmm moo ko mën a yankeewal mag ñi dëgg-dëgg ndax damay faral di wax ne ci misaal munoo wax fii ci ay boole ay tor ci alxuraan maanaam mutashaabihaat ayaat mutashaabiha yi munoo ko wax ci lekk pulaar <coughs> Sénégal booy lakk booy wax ci ayaat mutashaabiha boo nee lamaa jam-jam ne sàppo lamaa jam-jam sàppo muy lamaa yi nga xam ne du am shidda ci alxuraan pulaar yi maanaam liggéey nañ liggéey bu rëy rëy ci alxuraan yi wolof yi liggéey ba liggéey ci asma xorof yi xorof yi ñu liggéey ko loo xam ne dañ koo wolofisé dañ ko wolofisé dama ci joxe yenn misaal yu ndaw lu mel ni ar rahman xaa gi nekk ci rahman ñun wolof xaag lonk lañ ko wax ah xaagu lonk xaagu lonk boo ko fekkee ci alhamdu genn xaagee danaan la xaa dem dellu ay wolof la xaa dem dellu ni xaagi mel ca xaa gi nekk ci rahmaan moo nekk ci alhamdu noonu la xuruf yi mel duñ ci duñ ci bëgg a guddal loolu boo nekkee boo ñëwee ci alayhim ci misaal ayn gi nekk ci alayhim ayn ne gimiñ ñu tilli lañ koy wax tilli gu nga ni gimiñ ngi mel waaye boo ko fekkee ci anaamta ayn népp dégal dégalu fas bi ñuy waree léegi loolu yàlla moo ko sol ci bopp mag ñi ngir wattu ci téere bi muy dem nag mag ñi nekk jàmbaar ci ci bind alxuraan daara joo mas a jànge ba nga faa jógee da ngay bindub bàyyi fa ndax boobu kaamil yi melul na léegi photocopie yombul mu mënuñoo imprim imprimer téere yi léegi da ngay bind jox cadeau daara ji nga xam ne dongo bu ne dafay bàyyi ab ab kaamil kaamil yooyu nag nekkoon yu yu ràññiku yoo xam ne ñëpp xam nañ ko ci mag ñi ci wet yëpp <clears throat> dem ba ci yàgg nag loolu tàmbali dellu ko naaw dem ba ci yàgg loolu tàmbali dellu gannaaw ñu gën a yittewoo mokkal gi kese gën a yittewoo mokkal gi kese daara yu bari di woon ginnaaw mbind mi àgg na ci ay dongo yu man a mokkal alxuraan ca boo leen bind loo dara ci alxuraan mënuñu fexe ba bind ko la ñuy bindoo doo ko xam loolu ñun ñi yar ay daara yor ay école franco bi di jël xale yi mokkal xam nañ ci dara kon loolu dem na ba ba wàññi ko ñenn ñi sax di ko doy dal jàpp ne sax amatu solo booba kaamil daa manqué woon rek nañ ko jël nañ ko léegi eh, amatu solo lool kaamil yi bari na am na ñoo xam loolu la wax te ki jàng alxuraan ba noppi beqi ko ci àlliwoo def ko yoonu roban àggal def yoonu nisb bind kaamil koo day moom alxuraan yi léeg-léeg am na sëñ daara boo xam ne day wax ne sama dongo bu ma jàngal ba noppi bu ko yàlla mënoon a def dem defoon euh, euh, asxaabul kahfi nelaw loo ko juróom fukki at bu yeewoo tariwaat nelaw loo ko juróom fukki at bu yeewoo tariwaat loolu nag suñ daar internat yi mënu ko de suñ daar internat yi xam ne tajwid mu gaaw rek jóge fi la ah mënul loolu mënul loolu de am loo xam ne nañu bàyyi xel ne da daa am yoo xam ne as sawaabit wala mu tax a dafa am loo xam ne ci sawaabit lañ ko war a boole mooy bind alxuraan bind mu wér bind mu leer bind mu rafet nga xam ne boo ko wanee ginnaaw man ko bind loolu ci la bokk lool nag C3S nag gis na kon na liggéey ci wet googu moom ku nekk ngi liggéey ci alxuraan ci wet yu wuute moom nag mu gis na kon wàllu rasmu na ko jël def ko ci ab liggéeyam ndax téere bi kat ku ne yomal xiyaam loo ci def dana la seede kon nag C3S bëgg bu yomal xiyaamee bu yaat bu ñu taxawee ci kanam borom bi tabaaraka wa taala ñu ne kat kuréelu yaatal mbindum alxuraan ci njiital sëriñ alxaaji sëriñ Seck ak ñi àndoon na moom ñëpp ñoom de wet gii féetal nañu ci liggéey ci alxuraanul karim nga xam ne moo waral sunu sunu sunu sunu déplacement yi moo waral li ñu doon seetaan léegi ci sa Sam Mbacké yu metti moo waral lépp ab ab yool aku yiw lañ ciy wut loolu la ngeen ñaanal ñu yàlla yàlla yàlla nangu ko ci kuréel gépp yàlla ko yàlla nangu bu ñu xool sëñ Mutulaa xam ne dana génne ngir ngeen xool li li li raison bi sëñ Mutulaa li raison ci ñu ñu ñu ñu ñu ñëw ci sud bi xeeti mbind yi nga xam ne mooy am ci mooy am ci au niveau national si mutla ñu gaaral ko ngeen xool wuute gi am ba tax ñu gis ne saa bu ñu wootee da doon jël dañ doon jóge waa Matam dañ daan ñëw waa faneen ñëw waa faneen ñëw di sonn du sonn ca du niñ niñ liñ bëgg ñu fi bëgg mu àgg fa du fa àgg fiñ bëgg mu àgg fa du fa àgg ñu gis ne kon faaw nag ñu jéem leen a beral seen seen yëfi bopp yoo xam ne dañuy mën a fés ci seenu mbind moo waral ñu ber ñu ber mbind mi loolu moo waral ñu ber mbind mi moo tax mbind yi ngeen di gis comme mbind mii ngeen gis tey bu ko ci tableau bi ngeen jàkkaarloo moom ne mbind mee ngeen gis mbokk yi day day wuute ak ak mbind sidd yi mbind yee day wuute ak mbind sidd yi loolu moo tax nag ñu ne nañ beral nag jox chance mbind yi nga xam ne ñoo nekk sidd yi ñoom it ngir ñu mën a ngir ñu mën a euh, am seen chance ci jeexal bi ñëwee fii barki bii ak léegi ci turu comité scientifique mbokk yi nga xam ne ñoo lañ fekk si mutulaa ñu jàll ci image image démb yi. kon mbokk yi barki démb bi ñu fi ñëwee barki bii ak léegi dañoo dañoo convoqué mboolem ñi nga xam ne ñoo bokkoon lu jiit loolu lu jiit loolu mbokk yi <coughs> ñii toog du caagi ne ñoom rek ñoo bindoon. ay téeméeri téeméeri ay téeméer laa wax ay téeméeri téeméer lañ jotoon sëñ Mamoun ñaata lañ jotoon bu dee teeloon ko 250 250 cent 250 candidats amoon nañ ñoo xam ne bindoon nañ déposé ñu tànn ca génn ci mbooloo mii ñu gën caa ràññ tànn booba ñuy tànn it xamuñu fukki dëkk wala fukki dëkk dañuy tànn rek bi ñu ñëwee fii barki démb convoqué leen ñu ñëw démb leen leen jox yeneen gis noonu démb leen leen jox seeni kayit yi ñu war a bind dañuy ñëw rek Tuubaa lañ ko defare dañ naan sumun sumun sàngam tàmbalee barab sàngam ba barab sàngam aaye sàngam ba aaye sàngam sumun sàngam ta tàmbalee aaye sàngam ba aaye sàngam ñu def ci enveloppe noonu lañ ko defee ba enveloppe yépp mat bi ñu ñëwee ñoom xamuñ fenn fu sumun tàmbalee dañuy ñëw rek ñu leen jël ab enveloppe nga dem jël enveloppe la nga ca fekk moom ngay bind ñoom ñëpp ku ne jël sa sa sa enveloppe dem toog ci sa sajaada say bindukaay nekk fa sa këyit ne fa ñu daal di tàmbalee bind loolu loolu doy na wax naa ñu ko léegi maanaam loolu moo gën àdduna ak li ci biiram yàlla boole la si ñi nga xam ne bu alxuraan jeexoon yow man ngaa bokk ci ñi koy bind amul teraanga ju ko gën amul teraanga ju ko gën amul amul ci àdduna mbokk yi amul seen benn sumun boobu ngeen bindi démb moo gën àdduna ak li ci biiram temps bi ngeen ci def ku leen ko bëggoon a fay munta munu ko munta nekk munta nekk loolu laay bëgg jamono ju nekk ñu koy bàyyi xel ñiy yëngu ci alxuraan di xam ne ak lu lu ñu tuddee alal lu mu bari bari bari bari day ñëw ngir am daraje ci alxuraan waaye du yokk darajey alxuraan alxuraan lu ñu dugg yow yaay am darajey maanaam alxuraan ne lañu wala ruuse waaye yow mënoo wala ruuse alxuraan lu ma da bàyyi xel alxuraan moom am am na ko ba ku ca dugg nag danga gis ne da nga da nga ci jariñu kon loolu moom lañ daal def kayit yi ñu leen jox ay code la am kayit yi ay code la am dañuy dañ naan dañ naan B1 B2 B3 ba candidat yépp mat fekk ñoom seen tur yooyu am na fu ñu ko bind foo xam ne Sëñ Abdou sekk moom dong moo xam fa mu bind seen tur ak code yooyu ñu jox leen kayit yi kayit yooyu li tax ñu côté ko mooy duñ ci def benn tur donte ñun bu ñu ci defoon turut ñun ñu ko doon corriger xàmmee wuñ ko tudd Samba ak ku tudd Demba xàmmee wuñ leen xàmmee ci kenn waaye kayit yooyu la jël ci kaw code yooyu xool yan moo ci des ku nekk bala ngaa bala ngaa tàmbali am nga 100 points 100 points yi li koy wàññi dañ ko dañ ko def ci yi yi yi nga xam ne moom mooy règlement bi ku def nangam ñu wàññi la benn point ku def nangam ñu wàññi la genn wàllu point ku def nangam ñu wàññi la ñaari point ku def nangam ñu wàññi la rubon no uh, uh, uh, point noonu lañ ko def ba ku nekk ñu tànn xool si kayit ba li ci manqué ñu teg fii nekkoon am nga nangam nangami fot nga am san yi kon dese nga ci nangam teg nee noonu lañ ko toppe topp ko ba mu jeex takk ñu doog a ñëw nag xool ñett ñett ñan ñoo ci jiitu kon ñett ñan ñoo ci jiitu doog a jël ñett ñi ci jiitu ba léegi xamaguñ ñu tudd sax de xool leen ba xam ne ñett kayit yii de ñoo ci gën a ëppale ay point kii am na nangami point kii am na nangami point kii am na nangami point kon ñoom ñoo ëppale ci mbooloo mi ñu daal jël kayit yooyu teg nee dal ne kon nañ jëli suñu kaye ba nag xool ba xam ñii nuñ tudd parce que yéen a ngi dégg may wax doo ko jëli kaye ba doo ko xool ba xam kii ñu ne moo jiitu nu mu tudd moom xamuñ turam ñu doo ko xam ne kii nii ñu ne ñaareel bi ñu ne nangam tudd ñu ne ñetteel bi ñu ne nangam loolu wet googu nañu liggéeyee incha allah sëñ Abdou Seck dana joxe dana joxe résultat yi ci kanam nga ne moom moo nekk ci ci mujj gi li ñuy leeral it moom mooy képp ku bokk loolu képp ku bokk rek am nga enveloppe cinquante mille képp ku ci bokk rek képp ku bokk bokk gi nga bokk rek am nga enveloppe cinquante mille francs ki jël première nag dana am cinq cent mille francs ki jël deuxième dana am trois cent mille francs ki jël troisième dana am deux cent mille francs waaye ku bokk rek am nga paas bu ñu la jox ngir bañ laa neenal bañ tàmbali liggéey ba léegi noonu la ñuy noonu lañ ci noonu la ci alaaji sëriñ Seck liggéeyee hafizahullah wara ak ñu àndal kon loolu lañ indi comme ci turu comité scientifique xam naa xaw naa gudd waaye gudd gudd du dara lu may ginnaaw mooy lubbu maanaam mooy dëgg-dëgg liggéey bi mat naa leeral nag ba nit ñi xam ko eh, dëgg-dëgg lépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla te xam ne samay kilifa yi ma doon waxal ci ñoom la ak mbooloo mi ma lépp lu ci dëng nag man laa engagé man maa matut man maa juum man maa doyadi waaye bëgg mu mel noonu ñoo ngi jéglu baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu e, bandiraɓe ƴeewen tan tonngude heen hayso ko seeɗa kono eɗen bismo e iniraɗa ñalawma o hono ceerno men ceerno amadou alpha e, nani jooɗi ari homo arde ma won capanɗe joyi neɗɗo aɓeni jooɗi e nder e, golle he so ɓurani kadi min beltima ha no ko ɗum ɗo woni julɓe ɗum ɗo woni teddugal région matam annirama premiére ceerno men ceerno to wuuro soogi golle ɗe jooɗi min kibbiti min guiniri ceerno mouhammadou samasa e nder région matam golle ɗe peewi ha moƴƴi hikka min mbi min guinirta ka men galle men galle boyinaji khalifa o suɓi wi mi waɗe dow amadou alpha kanko woni koolaɗam amadou alpha ari région o weltima julɓe beltima c 3 weltima yo allah yommo moƴƴere an e denndaangal arɓe fof kono kibbiteɗen mbi'en alaji njaayi ko haalatno ko gila deftere nde oɗon nganndi alqur'ana wi inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu la wadde deftere nde allah reeni deftere mum kono hoɗon nganndi hay gila jaman nelaaɗo sallllahu wahyu sahabaaɓe ɓe khulafa ur rasiduna gila abu bakri umar ibnu alkhatab usman ibnu affan aliyu ibnu abi talibin ɓeɗo goni hulafa u rasidin al arba kamɓe kadi ɓe darima heɓe hen binda heɓe hen mbaɗa se en jawti ɓen ɗon hoɗon gandi de huula nde yimɓe ɓe heɓe mbaɗa guerre heɓe mbaɗa jihadi huñiɓe alqur'ana ɓe ina maaya wiya yen mbat feere ndendinen deftere nde ɗum ɗon fof kay golle mawɓe ɓe e sahabaɓe ɓe nde jawtuɗen sahabaɓe ɓe garɗene mawɓe men hohoɓe men rennoɓe deftere nde nden so neɗɗo jangi qur'ana ha gasni ha ɓaari enen mbiyata ɓaari ma winda deftere tawa yiyani ma winda deftere kono hande ƴeewe hande neɗɗo ina wawi huñade deftere nde ha gayna hande daraji biyeteɗi internet ɗi kono wawa windude hay sumun wawa windude hay fatiya ɗum noon woni ko gandanɗa hoorema sharika o c 3 kañum yiɗi ko wurtinde daaraji duɗe hanki gornoɗe ɗe nde qur'an o heddo almuɓe ɓe janga qur'ana comme matam wayni kala ɗa turruɗa e bedda tawa lampaji almuɓe ne jooɗi ine janga heɓe nodda qur'an heɓe nodda allah ɗum woni e nder région ngaji matam e fof ɗum yiya ɗo ko ɗum woni ɗo yallah ɓoynu min jii ɗum donc wadde sariko o ko ɗum woni komo yiɗi yo wurtire yo dare kono noon million ɗi o jogii ɗi kanko eh, alaji sek e wondiiɓe makko ɓe kala ko allah rokkimo ombo wawno wadde ɗum o happira ɗum e lamba hannde on jii lamba o on jii football o ko million ŋaji neɗɗo tottete cippireɗa ɗon e ɗon totteɗa million ŋaji nogas ƴeewe ɗum ɗo kanko noon haalis mbo jogi o o wi mbattanmi ɗum kay nder qur'ana mbattanmi ɗum kay nder defte he pour janga so allah ittimo ɗo tawa kanko kam homo daranino deftere alqurana ɗum woni ko alaji jeeyi haalatno gilanani ha joni kibbite ɗen e kamɓe arɓe ɓe kamɓe arɓe wadde corrigé ɓe goto e maɓɓe fof ko dondiɗo deftere nde huuñi deftere nde windi deftere nde te yiyani deftere laawol tati laabi nayyi kamɓe goni arnoɓe ɓe de ɓe hanki kadi sukaɓe tottaɓe ɓe heɓe binda woni jooɗiɓe ɓeɗo ɓe jooɗiɓe hoɗon jiyaɓe ɓe kayitaji ɗi mbaɗa préparé ko gila dakar kamɓe mbindani koye maɓɓe fuɗɗorde e sakkitorde minen min ganda hen haydara deɓe gari nde kadi goto arat tan ƴetta enveloppe enveloppe mo ɗettuɗa o an suɓani hoorema kono noon so correction o ari wona yimɓe ne tima e ousmane dia kañum o fooyi ala ine okkate ko kamɓe ɓe ganda hen hay goto wadde o haali ɗum kadi ɗum woni ko wiya wadde dañɗo hen foof yo andu kañum e hoore mum rokki hoore mum goɗɗo rokkani ɗum ɗum noon wadde ɗum woni ko alaji yaye halatno e min beltima ha no feewi kono ha joni eɗen jaaha e délégation ngaji he ma anta bi nicmati rabbika bi majnun